Thank FM asalaamaaleykum wa rahmatullah dal ak jàmm ci seen émission jàkkaarloo politique jamono bi ñuy àddu ngeen di teewlu fukki euh, waxtu ak euh, benn moo tegal ñaar fukki euh, simili jamono boobee ci lañu ñu nag fas yéene tàmbali la jëm ci seen émission tey nag dañuy jéggalu sax fa yéen ci ñaar yi nga xam ne jotu leen ñoo dégg rawatina nag bi ci mujj te nag ñu defal leen ay rediffusion ndax dañu amoon ay gàllankoor. Ah, ci euh, invitation xam nga euh, euh, acteurs politiques des fois da ngay wax rek waaye lu ci ëpp <laughs> ñoom ah, duñu am seen jot voilà mu ngi donc tey nag ci seen émission la politique ñu am gan ah, ci gan yi mu di nag Demba Seck moom mi nga xam ne mooy mouvement bi nga xam ne moom la di mouvement pour le développement intégral de Rufisque moo doon suñu gan. qui ànd ak ci waxtu boo xam des na waxtaan. Ah, ci wàllu politique ah, ci li muy yëngu rawatina itam ci mouvement bi nga xam ne moom la taxawal ah, lenn lenn itam ci taxaw askan boo xam ne des na ko amee loolee nag ñu bàyyi ko moom ci tàmbali gi Assane Ndiour mi ñu féetal ci xarala gi mu daal di def ab nuyoom ak mbooloo mi nga xam ne jamono bi ñu ngi ñuy teewlu dem ba ñu ngi laa nuyu. waaw salaamaaleykum Moussa ñu ngi lay fay. ñu lay nuyu aussi di nuyu auditeur ak auditrice yi nga xamante ni ñoo nekk Jokko FM di leen baalu àq di leen baal àq ci weeru koor bu sell bi mu ne di ñaan yàlla aussi li nga xamante ne moom lañ fi waxtaanee mu doon njariñu loo xamante ne njariñu askan doon. jërëjëf kon nag euh, mu mel ni euh, bal bi soqi na euh, ki nga xam ne Assane Diour la moo nu féetal ci xarala gi Moussa Pouye ci waxukaay bi seen émission. jàkkaarloo politique tey jii nii demba ba ñu am mbégte lool dalal la fii doon la laaj rek ci euh, tàmbali euh, tey suñuy présenté kan mooy Demba Seck boo xam ne euh, jàng fu mu jàngee fu mu jaar ba tey tollu fii. waaw loolu moom dinaa ci sawar te Demba Seck comme ni ñuy wax acteur de développement la mais aussi Demba Seck transitaire la ma nekk benn société kër de transit yàlla def nag ma am cursus jàngee école xeer ba ma fa jógee dem ma jëy sàll fa laa amee samay après def formation professionnelle am sama lijaasa ci transit mais aussi ba ma fa jógee aussi defaat naa yeneen formation surtout ci wàllu logistique daal bu ñuy tënk maanaam Demba Seck euh, la boo xamante ne maanaam ci li muy yëngu mooy képp boo xamante ne am nga bagage boo xamante ne mu nga naam ci port bi aéroport wala ci yoon bi muy yi soo ko gisee ak société am nga defal ba génne la ci jàmm ak salaam. incha allah. kooku mooy Demba Seck euh, tey jii nii euh, Demba itam xamewuñu la keese euh, ci wàllum transit li ñu la gën a xamee sax jamono bii ci Tëngéej mooy sa yëngu nga taxawal benn kuréel boo xam ne mooy MDIR lu muy tekki ak lu ko yëkkati. waaw MDIR comme son nom l'indique muy mouvement pour le développement intégral de Rufisque mouvement la ba nga xamante ne maanaam day dox ci wàllu yëpp surtout ci développement. sociale économique environnementale donc lépp lu nga xamante ne maanaam njariñ la bu war a mën a dem ci askan wi rek MDIR ci loolu lay dox. waaw bi nga xamee nag euh, MDIR euh, judd na ña bañ ànd na sax nga ko taxawal nga ko taxawal. MDIR bi ñu koy taxawal c'était à quatre mois des élections euh, locales 2014. Mm. te dañ taxawal MDIR te li taxoon ñu taxawal MDIR aussi. Nous avons démontré ay échéance avons wax élection locale muy bu ñuy fal maire yi yàlla def un constat Que ne gis nañ ni à chaque fois bu élection di am ñi nga xamante ne mooy acteurs yi muy ñi wax politiciens yi dañuy ñëw suñu gox ñëw waxtaan ak ñun laaj suñuy baat defal ñu ay promesse mais daanaka bu ñu leen falee ba pare rek dootuñu leen gisati <laughs> ñu ne nag ñun dañuy fi tegal mouvement bu nga xamante ne maanaam képp ku ñëw suñu gox nam ñu ànd ak yow di ñu wax lan mooy sa politique de développement bi nga xamante ne moom ngay indi ci askan bu ñu gisee ne loolu méngoo na ak bëgg-bëggu askan wi ak li nga xamante ni ñun moom la ñu bëgg. boo ko defee comme ça ñu ak yow jàppale la ba nga falu ak ah, ci kaw loolu nag am suñu ay xarit yu ko dégg laaj ñu ñu expliquer leen aussi objectif bi ñu ne ñu est-ce que yéen buñ leen joxoon récépissé pare ngeen pour dem ci élection effectivement ñun raison bi nga xamante ne tey moo tax sax mënuñu dem mooy ne suñu mouvement amagul kayit donc tay perche la boo xamante ni ñooñu tendre nañ ñu ko ah ñu jël ko muy benn partie bu nga xamante ni maanaam booy xool sax kenn xamu ko Sénégal mu tudd ngalu Sénégal ci loolu lañu ñu jëlee récépissé bi ñu nekk ay jeunes yoo xamante ne xamuñu dara ci élection mais yàlla dimbali nañu déposé nañ suñu liste ba euh, dem élection yàlla def ñu am conseil municipal. très bien alors ba nga euh, euh, tàmbalee soxee euh, ci li nga xam ne moom moo di yëngu yooyee lan nga daj ci ëttu politique parce que soo xoolee yow da nga demal sa bopp jël bannière jàmbur daal di xuus ba jàll ba ñëw toog ci banque bi lan nga yëg si sa maggo ak ñi nga xam ne ñoo di acteur politique ndax dañoo nekk ñoo xam ne ah, tey jii nii comme ni nga ko doon waxee da ngeen doon bañ naxe mbaay yi parce que nit ñëw gàddu seen seen seen seen ah, campagne ñëw wax seen i wax ngeen gëm leen ñu falu fàtte leen est-ce que tey jii nii gis nga ne euh, la nga waroon a fees sa place def nga ko ci seen wet ñoom ñi nga xam ñoo ñooy woy politique. waaw effectivement comme li ñuy wax ñu ngi jéem parce que euh, politique surtout bi nga xamante ne moo am Sénégal dafa. dafa xaw a métti métti bi mooy soit da ngay nangu nga bokk ci privilège yi soo nanguwul nag ñu bedd la te yàlla dafa def nag aussi bi ñuy def politique dugguñu politique pour am ay privilège dañu dugg ci politique parce que comme ni ñuy wax sànq pour xeex jafe-jafe yi nga xamante ne moom la askan bi di am aussi pour jéem a xool naka la ñuy def pour jàppale askan bi pour que jafe-jafe yi ñuy dund ñu mën leen koo même buñ ñu ko mënul teggi mais au moins ñu mën leen a soulager et nous avons rencontré ci langue politique bi des gens yoo xamante ne politique comme ni ñuy wax gars yi sont jaloux jalousie bi mooy c'est dañoo fiir dañoo fiir fiiraange bi mooy ne dañuy yaakaar ni à chaque fois jéego boo def rek wala buñ la jàppalee donc seen fauteuil bi nga xamante ne moom la ñu toog moom ngay bëgg ah mbaadu da nga sàkk woon ay ay taxaw ci waatu Alioune Mar ndax moom nga dëkkal foofu da mu war a def te deful ndax tey euh, tey jii nii amaana euh, tey sa mbuba bu gënee jot bosam ba moytu la yow la ñuy gën a faale euh, donte la bokk leen parti ma wax la benn mbir boo xamante ne peut-être ñun loolu la ñu gëm c'est-à-dire dañu bëgg a nekk des gens autonomes c'est-à-dire libres moo tax nous avons jamais demandé a qui que ce soit ak ku mu mënti doon bépp action boo xamante ne Mdir mu ngi koy def du kenn laay wax

Euh, tey jii nii euh, ñu seetlu euh, ci li nga xam ne moom la ñu génn nañu dañuy bloqué foofu local yi ndaxte dafa am loo xam ne mooy gën a sës sax par rapport ak li nga xam ne moom moo bi mooy présidentiel yi ñu génn jamono yele nga xam ne donc yéen seetlu nañu ne doon ngeen ci yëngatu ci li nga xam ne moom moo di wàllu politique fan nga fare won rawatina bi ñu leen di gis ci Idy 2019 lu leen boole lu la boole woon ak ñoom waaw li ñu boolee ak Idy 2019 lenn la ñun mouvement la boo xamante ne mooy comme ñuy wax MDIR bokkuñu ci benn parti politique ñu am benn offre boo xamante ne ki nga xamante ne mooy Hadjibou Soumaré moo ñu ko defal ñu toog waxtaan ak moom ci ay waxtaan joo xamante ne maanaam lu tegu ci loo xam ne pour intérêt askan wi la ba ñu waxtaanee aussi dem naa ci base bi. ñi nga xamante ne ñooy mouvement bi parce que ñoo ma joxoon mandat pour ma waxtaan ak ñëpp ñi nga xamante ne dañu bëgg a nekk président de la république ajibu ñu toog ak moom waxtaan mais du ne dañu waxtaan rek ñu d' accord parce que am na ay préalable yoo xamante il fallait ko ñu ñu régler ko ba ñu aussi ma ne man ndaw laa dañ ma donc laisse moi le temps ma ci ñi nga ma demee waxtaan ak ñoom li nga ma wax ni dinaa leen ko wax su nekkee ñoom gis nañ si seen bopp incha allah man dinaa revenir jox la suma réponse yàlla def aussi bi ñu demee ci base bi bu ñu leen expliqué ñu gis ni ah nit la koo xamante ne war nañ mën a ànd ak moom parce que euh, comme li ñuy wax produit boo koy vendre boo koy jaay hmm. da xam produit bi ngay jaay parce que tey ñun dañu dëkk ouest dëkk jokkul xam réalité bi nga xamante ne mooy am jokkul muy l'avancée de la mer et ñu mu am taxawaay bu mag boo xamante ne moom Hadjibou Soumaré def na ko muy le barrage bi nga xamante ne moo nekk jokkul ah jokkul ak Thiawlé lu mën nañu wax ni bu barrage bi ñëwee jokkul à Thiawlé c'est grâce ah parce que moom moo nekkoon président commission UEMOA donc euh, ñafe ba barrage bi nga xamante ne mooy bu jokkul bi ba Thiawlé bi donc mu ko fii donc mu doon loo xamante ne man ça m'a marqué marqué ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal mouvement bi ñu ne la fekk ñuy jàppale koo xamante ne defaluñu dara. Hmm. ñun duñu gis koo xamante ni donte nekkagul dara nekkagul président de la république mais mu am yéene bi ci nga xamante ne ñun moo ñu dëkkee ci gox bi donc tey ñun bu ñuy jàppale gëm nañ ñi jàppale kooku mooy gën a yomb ci ñun. donc raison boobu moo tax ñu jàppale Hadjibou Soumaré ba ñu jógee ci loolu ñu dem ci parrainage bi ñu def comme ni ñu koy def collecté ay parrainage yóbbul ko mais comme ni ñëpp xam muy parrainage bi ni mu demee ñu rakkale ñu rakkale ko bi ñu ko rakkale aussi ñu toog waxtaan métti na leen de

du sax. ah bon mais c'est la réalité parce que c'est un homme d'État un homme de détail. <laughs> Est-ce que vous comprenez oh, il, y a, il y a une nuance. Effectivement, non, il y a une différence. Il y a une différence. Mmh. Un homme d'État mm. et un homme de détail. Adibou doko dégg ci lu xamantene lu lu lu naka non. Mm. Amul dara lo xamantene manam mënon nañ ko tek pour empêcher ko pour que mu baña nek président de la République. Parce que comme le wax zéro faute hmm. Bécaye wax na ko hmm. te ku gis mobilisation ba ñu def grand théâtre hmm. donc loolu mo li nga xamante ni moo ah foofu da ngeen woo da ngeen teel a wane seen mbooloo nag waa mais c'est normal yéen yéen a def lu ñu leen parce que ngeen teel a wane seen mbooloo mais parce que ci politique la ñu nekk ku yor du saxat dem bay foofu wala ngeen teel a ñëw yéen yo defagu leen woon dara après tout de suite ngeen ne ni nii lañ toll gars yi dañuy bu ñu la ragalu sax dañuy dellu gannaaw tuuti xam nga le problème aussi tey doole. Mm. mënoo ko nag mënoo ko téye. c'est vrai. on peut géej gi. Mm. on peut kenn mënu ko arrêté ak say loxo mm. c'était une déferlante boo xamante ne moom sax daf ko jaaxaloon mais c'est parce que les Sénégalais ñoo bëggoon quelqu'un boo xamante ne maanaam comme li ñuy wax ku set wecc la. boo xamante ne maanaam amul dara dara dara bi mu géré gouvernement ba léegi loo xamante ne tey. Nous avons pour hmm. donc raison pour laquelle donc nous ñu demee nous nous recalé aussi ñu nous sommes y candidat mais nous avons ni Idrissa Seck était le potentiel candidat que nga ne maanaam na nous def ñu coalition. idi 2019 et liggéey si aussi liggéey boo mucc si ayib. Hmm. parce que lépp lu nga xamante ne waroon nañ ko mën a def pour gagner élection yi. def ngeen ko def nañ ngeen jël deuxième. ñu jël deuxième. lu tax. mais yow léegi nga fi junju di bàkkoo seen seen mbooloo ma nga xam ne euh, waree woon ngeen ko waree woon ngeen ko. Euh, mais terewul yéen a jël deuxième ndaxte ku fekkee nag Macky Sall da leen ragaloon ba tax mu rëkkale leen ba tax mu génne leen ci candidat yi malheureusement bi ñu ñëwee ci élection yi nga xam ne concrètement am ngeen ku ngeen ngemb ku toll ni Idrissa Seck également deful poids. mais effectivement xam nga aussi tey yow nga nekk candidat man ma nekk candidat Assane nga am ay relation yoo xamante ne maanaam. yow tey la yow la gën a jege ka man mm. man nga ko wax ne ko mën na la jàppale yow mais man nga ko wax ne ko jàppale Demba du ma jàppale c'est donc raison boobu rek la woon parce que tey c'était pas le candidat mais dafa am ku mu doon soutenir mais soutenir maanaam su doon su doon di gën ci gën ci candidat moom mu doon ko ca la doon seen poids doon feeñ suñu foofu la doon feeñee parce que am na ñoo xam ne àndu ñu wax Idrissa Seck mm. mais moom la gëmoon donc raison bobu aussi raison la bo xamanteni ne analyser politiquement aussi nit ñi war nañ ko di analyser. Mhm. c'est-à-dire man mi nga xamné ma jëm compétition bi Ah, ma wara soutenir soutenir da fay am différence d'approche ci nga xamanteni moy samay militant moy candidat buñu taylé moy candidat voilà <laughs> donc c'est parce que dañ ko doon jappalé hmm. c'est pas forcément ni damay jappalé diw hmm. mais ñima ma yépp dañ ko wara jappalé donc raison bobu motax peut-être buñu démé biñu démé sélection yi donc ñu gis li nga xamantene moy résultat yi fa am aussi moy résultat yo xamné surtout à Rufisque damay wax né c'est une victoire et pourquoi mo wax une victoire surtout au niveau de l'ouest bi nga xamantene fa dëkk parce que tok nañ ñom bi nga xamné ñoy kilifa yi bi nga xamantene ñoo ci mouvance présidentielle mm-hmm. ñuy bàkku ne Rufisque Ouest amul opposition alors ah, loolu nañ ko nous Assane bu ba opposition xëy sempi ndëndam denc ko ci ñu voilà nous nañ ko ñu ils vont gagner à 80%. c'est pas le cas. Ah, ils ont eu que 54% avec tous les moyens yi nga avons déployés. les moyens de l'État. les moyens de l'État. l'achat <laughs> de conscience. ah déet waay de la la DER en est une parfaite. Demba Demba ASSAD Demba euh, Moussa. Euh, Moussa. waaw. élection yi. Hmm. dafa am achat de conscience. de amna. qui de DER donc ñoom dañoo taxawal li nga xam ne moom moo di donc DER bi nga xam ne emploi rapide moo ko yëkkati woon ñu def ay financement jagleel ko tous les sénégalais dañu ko mbuboo woon uniquement pour di guerre gaañi pour ñu wotal leen loolu nga bëgg wax effectivement et la raison est ce que dégg nga DER fi mu nekk oh, man de man de man personnellement dem na dañ doon candidaté di laaj ay renseignement ñu jox ma renseignement ba ma jamono bii c'est suspendu boo nekkee APR ñu financé la même même ni ko suspendre maa la ko wax. <laughs> parce que non comme li may wax c'est que dañu nekk ci dëkk boo xamante ne maanaam. Euh, politiciens yi comme li may wax respecté wuñu askan wi. Ah, parce que ñoom li leen leen fal loolu moom rafetul. mais li leen yitteel. Hmm. mooy naka la ñuy def pour nax askan wi pour que li nga xamante ne mooy lii askan wi moom ñoom ñu koy jël di ko utiliser à leur fin parce que. moo waral tey ñuy xiifal population ba ñu sonn bu élection jotee ñu génne ay dix mille francs ay saaku ceeb ay t-shirt ak ay t-shirt leen ko jox ñu leen di voté. mais li fi amoon 2012 waroon na mën a yee Sénégal yi gis nañu pouvoir bi nii nga xam ne noonu lañ ca jotee woon mais mais te man pour man changement war na am ci comportement yi man gëmatuma jamono bi gaañu dañuy sol ay t-shirt sol ay xartum euh, euh, marron beige parce que dañ leen di jox xaalis est ce que du ñoom dañoo bëgg Macky Sall moo tax ñu di ko voté la preuve fii à Rufisque malgré yi nga fi jàmbar yëpp Rufisque dafa voté à 54 pour Macky Sall yow tam raison paradoxe bi mooy tey da nga naan man lii duut baaraam tëngeeg lii Macky Sall moo fi def euh, gare routière bi di dalal port port mineral, ndégal astafurlah bi di dalal donc li nga xam ne moom bi fan la nekk. gare euh, gare euh, routière mooy tax gare routière war na mën a tax ñu ñu wotal Macky Sall. gare war mën a jël jur ay emploi pour les Rufisques quoi. emploi euh, ci la ci nan. ci ci ña fay liggéey mën ngaa xëy di di liggéey ci ca ca ca terre ba. mais boo boo liggéey sa terre ba. waaw d' na waaw mais pour quand. ah, ah ba kañ. ba ba diire ba nga fa. mais nee naa la waxul waxuma projection le mais dama lu ñu mën a teg. baaraam laa immédiat lu immédiat loo xam ne ko yéen gisu leen ko gisuñu amul lu leen dara lu dara à Rufisque ba mu waral tax mu gagné 4 54 pour cent surtout Rufisque bi nga hmm. xam ne moom lañ nekk muy ville bi wax ma loo xamante ñu ne ma waa Macky Sall moo def waa kon lan moo lan mooy expliquer tey yéen ngeen nekk fi di kujje yéen ngeen nekk fi def seeni mbooloo ak Ibou Soumaré ñëw ak Idrissa Seck ak ñoom Bougane Gueye Dane ak ñu àndaloon ñëpp waaye terewul da ngeen lajj ci kanamu pouvoir bi waa Tëngéej ñoom la ñu wóolu Macky Sall la ñu wóolu malgré gis nga ne defu fi dara. parce que achat de conscience bi ma la doon wax léegi la. Sénégal achat de parce que tey toll nañ foo xamante ne tey bu nekkoon politique dañuy parce que politique ki nga xamante ne dafa war a tànn dafa war a tànn ku nga xamante ne au moins amal na ko njariñ c'est-à-dire mi ngi def loo xamante ne population bi ñu ngi ci gis seen bopp. tey soo ma waxoon ni tey peut-être Macky la am na loo xam ne liggéey na ko fi Tëngéej ba loolu moo tax Tëngéej ñu votel ko laa dama naan d'accord mais tey amul dara dara loo xamante ne man nga koo teg sa bët ni wax ni lii Macky Sall moom donc à part li nga xamante ne c'est invisible doo ko gis muy achat de conscience duñ ko wane. mais est gis nga ne yow gisoo ne Rufisquois yi tey jii nii c'est de leur responsabilité. Nous votons le mythe simplement parce que a une guerre parce que y a def achat de conscience alors que de mettre euh, donc euh, en exergue ce nga nous Momo dit di une appartenance couleur politique Ou également d'engager engager la communauté juste parce que simplement nit ñi dañoo voter le mythe parce que nous avons jox mais ce n'est pas responsable. malheureusement c'est ce que nous vivons dans ce pays-là des gens nous xamante ni manam. du nous xool suba. C'est malheureusement cette approche là même le politicien envers cette population là. mais est-ce que bu boobaa également amul euh, échec donc euh, ñi nga xam ñoom ñoo di société civile euh, waro a def dara ku ci melni yeen ñi nga donc andu len ak way politique yi tay euh politiciens yi mën am ce torat là ci donc population yi ba wara a engranger autant de voix à vos détriments mais c'est le combat là que nous menons.

sama sama nopp. beneen bi. seede yàlla. tey dañu toll ci période bu nga xamante ni tey ñu ngi ci ñu mm-hmm. mais amul kenn kuy conférence ñëw seet sa nit te la abal ay bâche abal ay chaise. maanaam yéen a nga ca social bi. ñu ngi si social bi. tey ci volet environnement bi. Mm. ñu ngi ciy liggéey parce que dañu jënd suñu ay ay mm. yoo xamante ne. tey koo xamante ne da def ay site ay bale ak yooyu. Hmm. boo ñëwee ñu abal hmm. bi nga xamante ne moo am tënge. jigéen ñi di jël ay euh, dem si yi di def regroupé wu di bale. Hmm. tey loolu si initiative bu EPDIR la tuddee ay consultation gratuite di fa nit ci doo fay dara.

ko loolu la ñuy def politique bu nga xamante ne da nga koy def muy impacté directement ci population. malheureusement comme nous si bëri du ma wax ñëpp mais la majorité. Hmm. li leen amal importance. Hmm. mooy tey du ñu dañuy fàtte démb lii teew rek lañu xam moo tax politiciens yi loolu la ñu xam ba y de cela trois ans. Hmm. élection dégg nga surtout local yi. Mm-hmm. tey yaa ngi dégg ni responsable diw mi ngi defar diw mi ngi octroyer ay subvention mi ngi dimbali eh, élèves yi mi ngi def te y trois ans de cela def ko mais lan moo tax mu koy def c'est parce que dañu war a dem ay élection local yi ñëw local yi di ñëw hmm. moo tax donc gars yi campagne bi nii te dara donc c'est-à-dire que <laughs> tàmbali nañ campagne bi hmm. ci parce que xam nañ ni population bi loolu lañu gis c'est-à-dire ñoom dañu fàttaliku dama yaakaar ni démb donc lii teew tey rek la ñuy gis ah diw kat moo ñu jox temps ah ñun kat diw moom kat kon moom la ñuy jàppale parce que euh, pour jox la ci firnde. Hmm. tout récemment dafa am ay ñu ma rencontré donc ci kaw rencontre bi un jeune m'a interpellé pour wax ni voilà ñun. dañu bëgg nga jàppale ñu parce que tey boo ñu jàppale yow tamit boo boo ñu soxlaa nañ la jàppale parce que ñun tey képp koo xamante ne jàppale nga ñu rek ñun dinañ la jàppale ma xam nga euh, loolu mooy problème rokki mi rokki mooy rokki mi rokkam c'est-à-dire loolu mooy problème bi c'est-à-dire que du ñu xool mm, intérêt bi kii kat mm, kii kat mm. dafa ñëw ak ay projet kii kat dafa ñëw pour indiwaat benen façon système dox. maanaam du ñu ak yow objectif déedéet dañuy ànd ak yow de la subjectivité. parce que yaa ñu dox seen intérêt mo fay nek est-ce comprendre parce que ah diou kat moo ñu dox lii diou kat moo ñu jàppale donc bu ñuy jàppale moom la ñuy et lolu mo am. te loolooy guerre bi. loolu mooy guerre bi. Mm-hmm. booy xool élection bu euh, joté les gens vont ont tendance à se ruer vers les mbootaay. Mm. des femmes. femmes yi lan la wax ah diou de mo fi ñew enveloppe bi dañ li la ñu jox donc diou mom la jappalé donc tant que politique bobu ñu koy mëne au Sénégal. Hmm. donc fi la ñuy c'est-à-dire que ni les politiciens li ñu wara def exigence bi nga xamantene mom moom lañ population bi wara euh exiger hmm. Hmm. duñ ko def parce que dañuy xam même bu ñu défarul fi nga xamantene ñom la ko wara defal bu jotee. bu ñu leen joxee 1000 francs wala 100 francs ñu wote kon daal bétail bétail électoral bi mu ngi fi saa yu gars yi bëggee rek employé leen nu mu leen neexee bu ñu paree delloowaat dañ ci tiroir yi. et malheureusement c'est la réalité parce que firnde bi mooy ne bu élection yi jeexee koo ci woo doo ko jot. ñoom politiciens yi ah ñoom ñëpp dañuy damm seen i puces ay double puce la ñuy yor mais ñun depuis ñu commencé ba léegi suñu benn puce bi dañ ku ñu woo ñu jël la bu ñu mënee def. bu ñu mënul wax la li li fi nekk. mais nag loolu fekku ci gars yi parce que dañ leen di def ay promesses yoo xamante ne maanaam bu élection yi jeexee rek c'est terminé et li koy waral aussi moi je comprends c'est compréhensible parce que nit ki nga xamante ne maanaam faluloo ko parce que da nga am exigence. Hmm. da nga ko fal parce que daf la jox mais kooku bu la joxee ba pare mais pare na si yow parce que kooku dafa jënd. du la jox cër. du la jox cër. du la respecté du la respecté du la mais eh, des fois ça mooy waral woote ña woote ñuy ñàkk la faire. et ce problème là que nous avons je vais faire un disgrâce par rapport ak ouest bi problème bi ñu am. lu xew. problème bi ñu am moy né dañu jël suñu patrimoine jox ko est te nag jot na pour waa ouest récupérer sen patrimoine ah bon. Ouais. lan la par exemple parce que man li ma gis de ah c'est vrai que xàll bi jëm ba tefes ga ca jokkul asan yow ba fa dëkk dégg naa foofu yëpp est la mu xaw a jaaxalaate wax xam nga ko sànq le pourquoi tey ñi nga xamante ne ñoo jiite est duñ fa def dara mais c'est parce que amuñu fa intérêt politique population bi nga xamante ne ñoo war a wote pour xeex ak meer bi bu deful dara mais population bi ouest lañ nekk alors que ki nga xamante ne mooy jël la fay ruus mais est la dëkk Euh, géographiquement est euh, ouest est moy gëna a yaatu mais bon xolé sur le plan démographique ouest mo gëna que bëri le mais xam nga euh, paradoxe bi était loolu lu ko indi ah, découpage bi nga xamante mom lañ def en 1996 parce qu'il faut ñu dellu ci li waral lool. Mm-hmm. en 1996 ngi nguru parti socialiste mo fi nekkoon. Mm. mu Euh, ñaari tendance muy tendance su feu Mbaye Jacques yàlla na ko yàlla xare aljana amiin amiin ak tendance bi nga xamante ne mooy bu Mamadou Bora Fall c'est trouvé que ne période boobu te ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ci ñaari buu ñaari buu yi mhm. donc kii nekk euh, ci boor bi mhm. est kii nekk euh, ouest mhm. ñu amoon tendance donc pour briser li nga xamante ne mooy doole fora mm-hmm. donc ñu def découpage bi ba jël li nga xamantene moy mooy quai de pêche bi nga xamantene moko daan jox tellement productive productive uh-huh. donc ñu xagn ko ko mm-hmm. pour que man ko euh, affaiblir donc lool mo waral découpage bobu ñu jël li nga xamantene moy mooy ndeppe kapaas bi école jokkul 1 école Jokkul 2 yóbbu ko fi nga xamante ne mooy es et xam nga li ci gën a doy li ci gën a métti mooy tey demal laaj jo école Jokkul 1 demal école Jokkul 2 nga xool ñi fay jàng fan lañ dëkk 97 pour cent yi Jokkul lañ dëkk et demal je défie quiconque mu dem ci ñaari école yooyu laaj leen est-ce que mas nañ leen a mairie est mas nañ leen jox paquetu kare mësuñu leen a jox paquetu craie parfois le maire de l'ouest mooy def sax ay gestes pour te dire parce que xam nañ ni population bu ñu fa dëkk ouest la dëkk c'est que loolu mooy problème yi nga xamante ne maanaam tey ñun foofu la ñu war a toll c'est-à-dire que pour xeex injustice bi nga xamante ne ñun population ouest bi jëm côté Jokkul moom la ñuy dund mais loolu tey parce que boo xoolee c'est découpage administratif moo koy andi tey jii nii loolu normalement décret moo ko fay moo ko fay pas nak naka objectivement naka ngeen nar a concrètement pour récupérer li nga xam ne moom euh, soxla ci seen patrimoine bi nga aujourd'hui c'est dans les limites euh, légales et légitimes euh, légal autant de pour moi pas légitime légal ci nga xamné véritablement mon modi est par rapport ak seen euh, seen zone ouest. waaw les actions que nous comptons mener parce que ni ñaa ci ah, am nga xamné ci peut-être ñun tamit ni ngi jël suñu wal maire ba acca mu nga sa euh, Alioune bon là mom j'en ai sais absolument rien. parce ah, que ah mais yene a bokk conseil municipal mosuma moko dégg. xana mom au moins dina tok au sein du conseil diko diko waxtane franchement yalla moma tim té dama wor musuma tok fu mu ko waxee. junj leen également pour l'interpeller pour que mom mu mo mu wax position am ci lool une fois. quelle a été la réponse mës ko ko wax né ko man dé amna ambition. pour li hmm. nga xamantene moy mooy suñu patrimoine bi ñu récupéré bon peut-être c'est au cours d'une discussion après fa lañ yem légui ñun action yi nga ñu xamante moom la ñu compté mëne. waaw. mooy d' abord li ñuy def ni sensibiliser. communication communiquer. Mhm. wax ak ñi nga xamante ne ñoo ko war a dégg. Mhm. ak population bi. Mhm. ñu xam ne lii nii la demee patrimoine la boo xamante ne ci ouest la bokk mais pour des raisons politiques mooy taxoon ñu yóbbu ko est. te nag comme que dañu def li nga xamante ne mooy acte trois bi muy wane ne mairie yi si boppam ñoo war a gérer sen bop donc jot na pour que ñun wa ouest ñu récupérer li nga xamantene moy suñu patrimoine en quoi faisant dinañ wax mais aussi ñu préparer pétition bo xamantene ne bind nañ ko paré def nañ ko paré pour dugal ko ci biir askan wi pour que askan wi donc signer pétition boobu bu ñu paré si pétition boobu nak aussi ñu interpeller ki nga xamantene moom ministre des collectivités territoriales te département bi lay oui le ministre Omar mhm. on va l'interpeller bind ko bind préfet bind ñi nga xamante ne maanaam war nañ leen a bu amuñu ne ay euh, satisfaisante le hmm. nous allons passer à la vitesse supérieure. vitesse supérieure vitesse supérieure c'est-à-dire que on va faire une demande de marche. Hmm. pacifique pour que population euh, pour que ñi nga ni de ko. mais yow xam nga du de. Macky Sall marche jafé na au point que ça euh, yu rek def ne marche rek gaay loolu noo ko nar réussir am nga ci expérience. dund nga ko fii woote nga ci affaire parce ay passerelle lu ne ngeen dugg ci gars yi ne leen du fi dal di ngeen dem ay marche ñu ñu leen di renvoyer renvoyer war rek nan ngeen mën a def loolu du solution boo xam ne c'est de la peine. no non non c'est pas de la peine. parce hmm. comme li ma siy wax li ciy jiite di jiitu ci. Hmm. mooy sensibilisation. c'est-à-dire aller vers les populations waxtaan ak ñoom expliquer leen li nga xamante ni mooy véritable problème je pense bu ñu toogee population parce que li ñuy wax ni ah. Hmm. peut être ñun ñoo toll fii pour mën a wax. Hmm. mais population bi ñu ngi ci de amaana tey fi mu ne dañu toll nous sommes des voix autorisées yàlla dimbali nit ñi dinañ ñu déglu mais li ñuy wax ni non combat bi commencé na. combat bi commencé na. te am ngeen aura jamono bii bu population yi. non gars yi commencé nañ leen di déglu. en dehors en dehors action bi nga xamante ne moom laay wax nii moom la MDIR di mener. Hmm. yaa beneen action boo xam ne mi ngi am bu nga xamante ne collectif. Hmm. bu waa jokkul. waaw juddu na. d'accord boo xamante ne maanaam dafay xeex ci li nga xamante ne mooy injustice bi nga xamante ne. dafa fédéré kuréel yi nga xam ne ñoo fa nekk ñoom ñëpp. non fédéré ñu wu ñu nee naa la am na kuréel boo xam ne commencé woon na di si xeex moom. d'accord tey kuréel googu. Hmm.

parfois, je me dis que pourquoi les tenants du pouvoir ne nous respectent pas mais parce que question boobu vous poser, euh, autorité locale bi l'autorité autorité centrale mais autorité locale et autorité centrale bi yëpp part de responsabilité. parce que aussi population bi aussi am part de responsabilité. Hmm. pourquoi. Hmm. parce que nous avons une population qui est statique. wax passivité bi. passivité bi. nangu ku leen yëpp. jaru jaru ko. Hmm. yàlla baax na tey problème bi ñuy xamante ne moom la ñuy dund tey ci dëkk bi loolu moo ko indi wax nga ko sànq ñun jóg nañ di xeex loo xamante ne pour intérêt waa dëkk bi yëpp la mooy naka nga mën a defee teer te nit ñi nga xamante ne ñoo war a bénéficier wu si teer bi amuñu yoon bu ñu jaar. maanaam ay ay passerelle waaw surtout parce que danger bi mooy talibeeg dem beeg dikk bi. amuñu passerelle amuñu pont. alors que amna fenen? am na feneen. alors que am na feneen ñu woo waa dëkk bi kaay leen ñu xeex mais kenn ñëwul. waa jaaxalaate na parce que lu moo tax lu ni lu ni toll ngeen di ko xeex pour waa dëkk bi ah, d'ailleurs euh, mat bokk drog sa baat jàmm mën ngeen ñu woo ci 88 628 0013 88 628 0013 ñu ngi également en direct ci euh, li nga xam ne di YouTube. page bu euh, Joko FM ak également page bu LVB TV foofu yëpp man ngeen fa fek émission mi poser waale seen question nga xam moy suñu gan di Demba Seck moom mii di jiite MD. est-ce que tay Rufisquois yi ñoo leen faalewul ci li ngeen di def wala yeen yéen amul assez véritablement de poigne pour mën def poids ci li nga xam mom ngeen leen di wo nga xam ne seen intérêt la. xam nga passivité bi nga xamante mom lañ wax du tënk du tënkee rek ah c'est partout dans. Euh, tay li opposition bi mais fi mais lo ci gis ay quelques nit ngay gis parce que euh, dañu tollu ci jamono jo ne euh, xex pour collectivité bi que ci ño jarul ko c'est-à-dire que ñu gëm moy yalla baxna ah, c'est fataliste l'ol, c'est trop fataliste yalla baxna amna alors mu que ni ko dugg Demba que mi alaykoum. waaw man la Moussa Pouy sant ndaw maar ñu ngi lay wax dalal jàmm da nga ñu ngi sant yàlla da nga bëggoon jokkoo ak euh, Demba Demba bismillah yi mu ngi lay dégg. waaw ñu ngi lay ñu ngi lay fay ndaw. waaw looy wax looy wax ci moom waaw. doy na waar hmm. Hmm. Hmm. doy na waar

voilà mu mel euh, dem na ñu koy jaajëfal lu bëri def naa li mu wax tamit daf lay rejoindre. mais euh, effectivement parce que li mu wax mooy li nga xam ne am c' à dire que ne tey ndeppe xoolal salte ba fa am. xoolal. 88 628 0013 salaamaaleykum. soxna si na nga def. waaw ñu ngi lay delloo ziar noo tudd ak fooy wootee. Koki ah, <laughs> kooku kii sa jigéen la <laughs> dem ma lay dégg ñu lay delloo ziar lu bëri kay delloo ziar bàjjen waaw oh, lay ndeysaan hmm dëgg la waxul lépp ah Hmm? <laughs> ah c'est dommage c'est dommage Maintenant, nous avons 88 628 0013 que que ñu également ci page euh, officielle YouTube bu euh, Radio Djoko FM. ak bu euh, LVB la voix de Bargny TV euh, ci euh, YouTube bi ak internet ñu ngi également ci Rufisque wax sa xalaat poser leen seen i question ki nga xam ne moom moo di dem ba am nañu fii ba midi 20 Assane suma ma juumulee pour daal di jeexal émission bi léegi yaatal bi nga xam ne moom la askan wi waroon a yaatal fa mu dese fan la dese fan lan la askan wi desal kilifa yi ci yabeel gi nga xam ne moom nga doon wax di ko jàmbat

dañu magal. Hmm. franchement ils ont fait leur temps et jot na pour que ñu bàyyi xalé yi la nouvelle génération duñu ay xalé sax parce que. pour dem donc ce qui veut dire que. ba euh, suñu ba suñu wesso suñu papa euh, bi nek en ville. Mhm. Euh, tey Alioune Mar. mam Mame Omar Mané. Albé Ndoye da nga gis ne génération ñom Souleymane doy génération boobu yëpp dafa war a pousse yéen ngeen ñëw. mais effectivement parce que ñooñu màggat nañu fi à ce point. mais c'est parce que. bu ñu leen di comparer ak tey ku mel ni. Euh, donc euh, euh, le président de l' assemblée nationale. problème bi ku mel ni Tanor Dieng entre autres. non problème bi de loolu c' est l' usure du pouvoir. d' accord. xam nga dina dem ba foo xamante ne. yenu na maanaa sax boo fa tolloo. parce que toog bu yàgg bi toog bu yàgg bi. bang saa boo ci toogee ba mu yàgg da lay toog. da ngay waaw da ngay da ngay da ngay sonn. <laughs> bon. Est-ce qu'on va... C'est ce problème-là que nous avons. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une alternance générationnelle au niveau de l'office. donc waaye nguur dafa neex de dem. waaw nguur dafa neex nguur dafa neex. mais aussi nguur tamit euh, da ngay layoo. kenn du ko ñëdd euh, ëllëg ngay layoo. aussi tamit waaw parce que neex na. trop sa njaboot sax boo ko yoree sa kër yàlla dina la laaj. noo ko yoree effectivement donc aussi tam il faut parfois gars yi di ko bàyyi xel. Hmm. xam ne nii fii euh, du këru dëkk ki këru dëkk gi suba la. fii jaar jàll la fii jaar jàll la. te fii gérer lu ne. Hmm. ak nu mu mënti toll. suba di nga rendre compte. waaw kon ñi doon guerre nu ñuy mel. ah ñi doon guerre kon ñoo koy. liggéey ñii ci bëkkee su di ko yóbbu nu ñuy mel. mais ils n'ont qu'à compte euh, yàlla. waaw ah. ça moom c'est sûr. sama fit bi rëcc na. waaw ils vont rendre compte ki nga xamante ne mooy subhanallah. est-ce waaw suñu borom. Hmm. fii lu fi waay def lu ne di ko rendre. waay xaar boobu yàgg na de parce que du ñëw tout tout day day waaw mais mais comme. comme mais bu boobaa jamono bi askan bi dinañ sonn de. mais dina métti mais aussi parfois il faut nit ñi ñu leen di delloo si si yàlla. waa yàlla am na. waa léegi Demba tey su ñuy voté. waa dafa mën ku ñëwaat 88 628 0013 salaamaaleykum waaw. Abou Seck quartier Coxoru Fisk da nga soxla woon Demba bismillah mu ngi lay dégg Demba acca. waaw sama nijaay jaar naa la. jërëjëf incha allah. amiin amiin. amiin yaa rabbal. social. moi, il est habillé état bi tu mais mais mais c'est grave. merci. ñoo maa ngi leen di fay jërë ngeen jëf merci beaucoup merci Samba Ndiaye merci. waaw mais muy lu doy waar ah, parce que lii témoignage bi <laughs> je pense que tamit euh, am na leneen lu muy firndeel euh, ci euh, donc yi nga xam ne moom nga doon dingat xam nga loo dund wute naa ko loo dund ñun ay acteurs lañ yoo xamante ne dañoo dox ci élection bi gisee population bi waxtaan ak population bi. mais parfois tu te dis que ñii xanaa si diggante bi dañ leen a wecceem mooy ger ga nga doon wax. mais weccee bi du dara parce que gars yi ay une heure du matin deux heures du matin lañ leen di fëgg du leen jox xaalis duñ la ko jox bëccëg parce que nous sommes des acteurs quoi c' que waxuñu pour. pour waxantu pour waxantu parce que dañu oor tey aussi gëm nañu suba am na mais li ñuy wax lu leer la il y a eu des achats de conscience benn wax na ko ñii di doon fayee ko bourse familiale. tey soo mën waaw acca fayakootuñu parce que élection yi passé na te aussi dëkk bi xaalis amu fi dëkk bi xaalis amu fi. dëkku Macky Sall bi mais dëkk bi benn mais xoolal promoville bi. su ci am. mais promoville bi ça fait des mois. c'est vrai que ba ñu ko lancé ba léegi Rufisque mënu mën a. ba léegi pareegul. même chantier yu si bëri dafa tàggatee. mais waa Cité Gabon ñu ngi jooy. lu ñuy jooy. mais demal kanaal lañ leen fa gasal. oto yi mënuñu dem mënuñu dikk rigol yi di toj fu ne yooyu sonal leen paa bu ñuy dem jàkk ja c'est tout un problème ñii di daanu fii 88 628 0013 ma dog sa baat jàmm mbokk mi salaamaaleykum euh, tur bi ak fooy wootee sëñ bi ah yëkkatil tuuti sa baat rek nga baal ma allo monsieur Ndiaye monsieur Gaye voilà dalal ak jàmm monsieur Guèye da bëggoon a euh, jokkoo ak euh, Demba ah dégg-dégg bi waaw sësal tuuti euh, interphone bi nga mën a wax bu baax ñu dégg la. allo waaw fi nga fi nga nekk réseau bi baaxul day dagg xam naa mën nga ko nga woote waat dina dugg incha allah jërëjëf ñu ngi jégalu 88 628 0013 ngeen def seen laaj ñu ngi également ci Rufisque wax sa xalaat ñu ngi en direct ci plateforme yi nga xam ne mooy YouTube euh, rajo Jokko FM ak LVB TV ci YouTube mën ngeen ko seetaan en direct poser seen i question ak Demba acca bismillah ca la ñu toll woon mooy ñi nga xam ne dañoo màggat jamono bi gars ñi dañ leen di fëgg di leen di leen ger te pourtant ñooñu ngay wax faalaw ñu lu magget yi nga xam ne ñoom ngay bañ ñu toog ci pouvoir bi. waaw mais c'est loolu mooy problème bi nga xamante ne nag tey ñun. Hmm. ci loolu la ñu war a dox. c'est-à-dire conscientiser population bi ñu xam ni. Hmm. am na foo xam ne bu ñu fa tolloo. nit ñëwaat na de mbokk mi asalaamaaleykum 88 628 0013 allo oui waaw baax na bi yoon monsieur Guèye. muy mm. mm. ñu ngi lay dégg bu baax merci beaucoup gay ñu koy na. malheureusement ñi nga xam ne ñoo doxal te nekk ay maire dañoo dem pouvoir bi euh, di yëngatu pouvoir bi li mais effectivement c'est la réalité. te dafa mel ni non je ne le connais même pas <laughs> donc ça veut dire que le véritable problème que nous avons c'est élite bi ñu yor. ma mais élite bi tey jii nii euh, avantage la waroon doon Souleymane Ndoye euh, moom euh, conseil départemental APR la àndal nga dem ki nga xam ne moom moo di Alioune Mar créer mouvement am dem àndi ak ak pouvoir nga dem à l'est dem àndi ak pouvoir créer mouvement am ba dem say foofu nga dem ñi nga xam ne ñoom ñoo di kii nga xam ne mooy jiite lépp lu jëm ci wàllu donc jam pôlu bi muy Doudou Maïssa ab waa doomu Tëngéej la nga dem à a nord euh, maam Omar Mané ànd ak euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Badara Mamaya Sène ñoom tey jii nii pouvoir la ñuy jàppale mais tey kay au au moins pouvoir kay Rufisque la waroon gën a faale. mais léegi dund nga fi ñaari maire muy Albé ak Alioune hmm. mais Macky Sall sax xamu leen. <laughs> mais Macky Sall recevoir na. recevoir na recevoir kii nga ne xamu leen. le de Pikine Est. ak la mère de Jaxaay <laughs> c'est la réalité maa ngi jéggalu ci li may parce que du ñu inventé quand même wax nga dëgg parce que gis nañu fi erreur yooyu directement en s'adressant à une personne bu nga xam ne euh, ki ngay waxal dalay jàppale c'est pas ça. un maire hmm. xamuloo ni maire ban gox la ça veut dire que ni tay kooku nan la la mën a est-ce que du si entourage bi rek le gars ñu juum ci tur yi ñu bind ci liste yi wala euh, lapsus bu génn directement ci gémmiñu président Macky Sall. c'est pas un lapsus. c'est parce qu'il les connaît pas xamu c'est dangereux. et c'est ce que nous vivons donc l'ol moo tax problème de leadership là. Madame am. quelque maanaam kilifteef gi kilifteef gi teel kilifteef xam nga wale. Mm, may. Mm. c'est-à-dire que nga don li nga doon am une assise politique. nga mat ko nga mat ko. te gaa ñi ci. li nga xamante ne mooy population bi ànd ak yow ànduñu yow parce que da leen di jox xaalis mais dañuy ànd ak yow parce que da ngay defar. pour me mais mais dem ma yàkkamti man dagg sa baat jàmm mais tey soo naan matuñu ko Alioune maa tey. Euh, fa nga xam ne fa la euh, kii bi nekk nu mu tudd sax foraay bi euh, tey jii ni defal la fa centre commercial bu mag nga nga demaat également gestion wu li nga xam ne moom moo di lu jëm ci donc gare routière bi gestion bi ñu defaraat ko ba gaañu fi mu nekk nii nañ ba lépp jaar yoon yow tam nga dem nga toog fii naan ay di di di gaz di di di wax gaañu matuñu li ñu doon. xam nga il faut ñu revenir un peu en arrière parce que il faut aussi parfois qu'on se dise la vérité pourquoi ces gens-là sont allés rejoindre Macky Sall. ban intérêt lañ ci am. te population bi leneen falal opposition c'est parce qu'il y a anguille sur roche anguille sur roche quest lan qu'on fait parce que bul bul nous avons un état à bord Mais, ce mais est dal Khalifa Sall bañ moo ko indil nous avons un état à xam ne dafay indi moins de pression et du chantage te xam nañ gestion mairie que ni y a beaucoup de choses à revoir. mais Assane kon Demba ma dougal fofu sërëxal mhm. est-ce que tay da ngay lié kaawu Khalifa Sall bagn ba mu yobou ko prison tay ji ni da nga bëgg wax ne euh, tay loolu la gaa ñi di bañ moo tax ñu dem ànd ji ak Macky Sall. effectivement ça je le. non na leer non dama bëgg mu leer. non xam nga non loolu boo koy wax fii dafa war a leer. xam nga li may li may wax parce que warul nekk ay accusation gratuite da nga ko war a leer non accusé wu ma je n'accuse pas ñoom ñëpp ils ont été fouinés. maanaam. inspection général jaar na fo d'état way dafa jaar ci maire yi. de maire yi ñi ngay maire yi maire yi ngay dama ne. amul maire bo xamante opposition moko yor te état bi def fa. non fi ñaari maire mairie dem fi opposition ci pouvoir muy maire est ak maire ouest. li ngay wax dem ko la. amul maire même ñi nga xamante ñoo ci parti au pouvoir sax ils ont été fouinés donc dama lay wax ni tey bañ koy def pour mu rafet dañuy wax ni ñëpp lañuy ñuy. chambar càmbar ñëpp la ñuy mais ñun xam nañ li ci ci und. ñi ñu xoxatal ñoo dem wuyu ñu xoxatal <laughs> parce que li tax ñu leen di xoxatal c'est parce que les textes aussi parfois ne sont pas clairs. parce que li ñu jël ba japp ko ci Khalifa Sall amul maire bo xamante tey bu ko neexon Macky Sall tey do fanaan rëbës. ku ne laal na ci sa caisse mais c'est parce que ni ñu euh compte hmm. moom la war a revoir. benn da may permettre ma dem ci loo xamante ni luñ ma wax la lu ma yéem. Hmm. que ne est-ce que vous savez que ne gare routière bi nga xamante ne sànq tudd nga ko. Hmm. am na loo xamante ne mu ngi fay génn te maire bi gisu ko. maanaam. maire ouest lu mel nan. xaalis muy xaalis boo xamante ne dañ koy collecté. fu muy jaar. ki nga xamantene moy président regroupement des chauffeurs. Hmm. mu ngi koy collecté te maire bi du ko gis trésor du ko gis. maire bi dina ko gis. parce que maire bi maire bi ak maire bi du ben xam nga maire bi maire bi gisul maanaam le conseil. mais maire maire bi war na ko gis. laa ndaxte ci zone am la domaine am la. la laa mënuma la ci wax du dara mais lima ma wax moy né maire bi gis ci boppam parce que le maire en personne mo tok taxaw ne maire bi gisul boppam ci li nga xamante ne mooy gàllankoor. waaw Demba non non non Demba loolu munul nekk munul nekk munuloo 88 628 0013 salaamaaleykum mbokk mi noo tudd ak fooy wootee Abdou Ndiaye waaw bisimilah ñu ngi lay dégg. ñu ngi lay gërëm di la sant yow itam mbokk yi 88 628 0013 mu desale ñu ñaari minutes yoo xam ne euh, war nañ cee mën a waxtaan ci fi nga xam ne fa nga toll woon ci gare routière bi. xam nga moom laa lay wax. lu ma jaaxal. c'est que loo xamante ne. te ñoom sax jamono bi fal woote woote nañ ba ba fal keneen ku xam ne mooy jiite jamono bi effectivement xanaa dina changer au moins. dama du loo xamante ne man maa ko wax. inventé wu loo ko. conseil municipal le maire taxaw man gaa j'étais pas là-bas que pour des raisons

pour maire bi les conseillers ont applaudi parce que comme que. mu 2 millions mën guen ci gare routière bi dugg ci mairie bi. waaw mais lolu xaalis la. mais les mais les conseillers ont applaudi parce que comme que mosuñu soy gis suñu bopp te tey am na koo taxaw na pour le faire pour le faire. Hmm. mais les conseillers ont applaudi mais alors que ndeke c'était un ar. arnaque un arnaque. xam nga arnaque bi moy lan. Hmm xam nga maire mi ngi naan euh, maire bi mosu gis boppam mais ndekete y avait un comité provisoire boo xamante ne maire bi moo ko tegoon mais ce comité là a versé 80 millions ba mois de mars 2018. ci ban crédit. loolu nag mooy nébuleuse bi nga xamante ne lu ñu waral la. <laughs> loolu mooy scandale bi nga xam ne tey fi mu nekk nii loolu la ñuy war a wax c'est-à-dire que ni ki nga xam ne sa kon sa mairie su doxul nokk ki nga xamante ne moo ko doon versé mi ko ki ko doon ki nga xam ne moo ko doon versé hmm. mi ngi ko doon versé trésor bien sûr mais xamuñu amul rubrique amul ligne boo xamante ne tey mën nañ la wax ni ci ligne bi lañ ko dugale donc muy loo xamante ne moom comme li may wax il va falloir que ñu càmbar seen budget si ñaata la 300 millions def naa ngeen di am bien sûr 80 millions 80 millions yoo de 2015 à 2015 à 2018 comité bobu dugal nañ ko fa. te feñul fenn. te feñul fenn amul benn rubrique bo xamantene def nañ ko fa. mais mais mais lolu conseil bi moko xam. wala dañ ko yeggee non dañ ñu ko yeggee parce que ñi ñu ko moi qui ki nga xamantene moy le euh, gestionnaire. waaw. moo dugg léegi peut-être xam naa peut-être. ah Ndar ok d'accord Ndaw Maar. et aussi la contrôle. mais loolu bëggoon nañu Ndaw Maar tamit moom duggaataan ah, leeralal ñu ko parce que loolu man euh, xaw na ma ëlëm quoi quatre-vingts millions yu waat Rufisque Ouest nekk nii ci ngelaw li te loolu dafa doy waar quoi te ñun xamuñu si dara. kon yow da nga bëgg wax ne ci yooyu noonu la euh, donc euh, contrôle bi am que gars ñi voilà ñemeetuñu ñu dugg ci ruq yi. non waxuma dugg si ruq mais dama ne c'est que lu ñu mënul nangu loo xamante ne tey conseillers yi am na ñoo xam ne ni dañ ko porté muy combat bi mooy ne dañ dul nangu ñuy jël suñu patrimoine di ko jox benn regroupement wala benn nit mu ciy sucré sur le dos de la population. jërëjëf Demba peut-être maire bi xamu ko. je ne mm. sais pas wóoru ma. Mm, mm, mais am na loo xamante ne parce que ñi nga xamante ne ñoo ñu wax lii. nee nañ ni gare routière bi mën na génnee 10 millions par mois waa léegi kooku nag ñu jox 2 millions. loolu est-ce que war nañu toog di ko seetaan kenn na nit di sucré wu sur le dos de la population. kenn nit ki mooy alors que mooy ki nga xamante ne mooy président regroupement de chauffeurs. mais loolu loolu doy na waaraan ah. loolu moom vraiment vraiment su ko autorité yi déggee dañoo war a réagir voilà donc euh, jar na contrôle jar na càmbar parce que évidemment Euh, ce n'est pas ce qu'il faut faire ndaxte la ne xam na ne xaalis yu sew yoy nga xamné moy génn euh, ci collectivité locale yi souvent moy dem euh, ñu mën ko inscrire donc dans le budget pour le fonctionnement donc bu maire yi effectivement bu dé l'ol moy am dëkk bi du gawa dox dem ba yëgsi nañ ci pandaw gi loy tàggatoo. bon xana di len gërëm di len sante ñu ngi lay fay ñun tamit ñu lay gërëm di la sante mm. aussi di gërëm auditeur auditrice yu joko FM. Mm. ak euh, euh, ñi nga xamante ne mooy euh, ñi jot a woote. Hmm. te amaana peut-être am na ñeneen ñoo xam ne sax bëggoon nañu woote mais. ak ñeneen ñi mën nañ la kaar ci élection locale yi. waaw <laughs> donc xanaa. le futur candidat. incha allah parce que du lu ñuy daw. <laughs> Hmm. parce que ku ci nekk la. parce que 2014 nous étions partis pour briguer la mairie de l'Ouest. te di ngeen ko renouveler. incha allah et dinañ ànd ak ñoo xamante ne maanaam. en tout cas nous ouvrons la porte. Hmm. et puis nous tendons la main à tout le monde. Hmm. c'est-à-dire que nous aussi c'est pas une fixation. parce que nous avons amal importance nous la nous hmm. suñu askan difficulté nous avons, Ibra Fall lépp a ngi ci ndigal Fall lépp li ñu ti bay góor may sa bige Kumba Fall a ngi ci ndigal Fall nee na lees ooy nee na lees waxul nee na lees ooy nee na lees waxul nee Fall borom faraxati ca Njandem Daba Maam Say Njaay